salaamaaleykum. maaleykum salaam. maa ah. ngi fi. maa ngi fi. waaw fi ma. lan mbuus bi ne naa ko déposé daa am mu ngi ñëw naa ko joxal doomu. waaw indi man la doomu. ah ok merci beaucoup. waa kay jërëjëf waay. Ah, xéwal bu baax moo fi ñëw de. nga ni tey dama laa def imaam. imam waaw am na benn muus fees tel bu ñëw ci kër ah waaw teetas tey moom moo tax may la duñ yaa wala <laughs> ay das sama doom ji dañuy salaam eh, ñii laa jox mbuus bi yow nga ne yaay doomu imam yow am fit yeen dal ni rek doom imam nek ni ma ñew di lacc ci kër imaam au lieu nga tektal ma kër imam nga na ma yow yaay kër imam fii la yow yaay doomu imaam joxal mbuusu jàmm. ay eh, eh, doomu imaam. loolu de la fi wax. <laughs> dama ne ko doomu imaam xaritam man xaritam la quoi man yow man yow ay xarit lañ quoi. man duma xarital client. koo xamante ne suba ba ngoon guddi ba bëccëg guddi ba fajar ba guddiwaat ba guddiwaat moom daal client rek. Yo, est ce que xam nga ne yo yo yo yo yow yow sa papa bii du triant waaye yow ñaar ñëpp ay triant moo ba jaam bu weer def lo mu def ko. eh hmm? xam nga lu ma bëgg. Ah. njaboot gee ko jiital ma wax ci jarul muy bëri sama mbuus laa soxla. lan. eh sama mbuus laa soxla. jox ko mbuus bi mu dem maanaam mbuus yow mbuus maa ci yow jox ko jox ko mbuus bi mu dem jox ko mbuus bi yaa gën xam fi mu ne ko mbuus. jox ko mbuus bi mu dem. eh danga ma dul jox sama mbuus yow. jox ma sama mbuus wala doo ma jox sama mbuus. dama lay jox mbuus mi. waaye jox ma sama mbuus lépp dama lay jox mbuus mi. non bu paree nag dama lay jox mbuus mi. yow nii nga ko nar a jàppee. non liggéey ji. wax nga xorom waaye. fay nga trop ak ñu ngay trialoo sa papa yow di nga ñàkkee jox. wala wuy ma wuy ma tàntal ma ji tàntal